ay ca mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm di kontaan ci yéen journée Djibson production ndeysaan mbokk yi mi ngi noonu premier combat de la soirée diggante Mbaye Reug Reug ak Petit Niang Mbaye Reug Reug moo ñu woon gannaaw ñu jàkkaarloog Petit Niang mbokk yi. dóor amagul jàpp amagul waaye combat bi war naa mën a gaaw. ndax ñoom ñaar ay xelalante ne naa la combat xele warul bëri calcul attention mbay rëg rëg ña ngay foqante baaraam mook Petit Niang Petit Niang wàcc na léegi def demi flexion jógaat ndeysaan attention arbitre souffle na lan lay wax nee leen nee na leen bëre leen bokk souffle waat na génn seen diggante Petit Niang ak Mbay Rëg Rëg ndeysaan attention eh loolu lan la Petit Niang Mbay Rëg attention ñaa mbay Mbaye Reug Reug attention Petit Niang door na Mbaye Reug Reug fayu attention Mbaye Reug Reug naw na jël tànk ba lan lay def Petit Niang roof ko caxabal mais agul Mbaye Reug Reug yëkkati na ko tegaat na ko Mbaye Reug Reug ruur na ko war ko ndombo daf koy tuur attention kal ko daan ko mbay Reug Reug daan na Petit Niang laa ilaaha illallah Mbaye Reug Reug daan na Petit hoho isaan Modou Mbaye Babacar Mbaye Feugeula moo ñu woon gannaaw ñoom ñaar weccoo nañu ay coup moo am ngemb bu bleu bi Abakara la ñu jàkkaar lool Abakara numéro 2 Abakara numéro 2 xam nga ban Abakara mi ma xam doomu ndeyu Ada Fass la benn bi la parce que xeex bi arrangé wul Abakara songu de mais Abakara jege na saaku de waaw ba du jëlaat day génn mu songu rek songu na song na tibb na abaak tibb na mbay fëgal jàppante mais fa mu jàpp baaxul. ku am na ngemb ñoom ñaar ñoom ñaar roofoo nañu. déglu wante attention. bët mën naa am de mbay fëgal na ko mbay am na lu mu bëgg. ci wet gi la bëgg a dem. Abacara jox na ko wet gi de ci flan bi la bëgg a jaar. gis nga wax naa la ko na ko gis nga ma nga noonu xale ba rëcc na. laa ilaaha illallaah day génn génn. day jël avertissement deuxième avertissement mooy kul. mais moo mais mais moo. waaw. mbay fëgale mi bandi la de. père ñu ngi ziar mbay fëgale mi la de. non bandi la bi mu fi mujj daa juumoon ci jë digganteem ak jël dem. waaw dem da koo jumloon. Abakara nag bu ma juumul bii mooy premier combat. bii mooy premier combat wala maa ngi koy doog a seetaan muy bëre bokk. mais mel ni fi mu dal baaxul de. ah non mu dal fekk na bëre na ay combat yu bëri mais Abakara day wàcc ci mbapat yi day bëre ci mbapat yi. Abakara day bëre mbapat. waaw bëru lutte simple la. ah day wàcc ci simple bi. attention eh. attention baaxul. Eh, na nagam na eh. ko mu daal. gaañ na ko sax gaañ na ko gaañ na ko oh. Oh, deret ay yéya oh c'est dommage. oh oh cey mbay fagal la. mi ngi noonu di wax ak coach bi Mbaye Ndewane mi ngi wax ak coach bi ndeysaan coach Tapha Tine naa la. wala ne. maa ngi si jàmm. combat bi dama ànd ak ay ñoom Fourier rek gars yi ñu ay ñoom Temax si ñu teg ma lu diis liggéeyloo ma gëmloo ma ne boo boo ko jàppee rek daa war a jeex quoi su ma liggéey si loolu. bii moo mooy sama deuxième combat damaa ñëwoon sama premier combat lom fort daan ma ma ñëwaat fii confirmé waaw waaw. léegi fan nga jëm. non nañ ma jox si gars yi rek instant yii pare naa maa ngi waa xaar yàlla yëpp di sant euh, waa Kastor di ma dëkk di san Cheikh sama grand bi di xaar yàlla si combat bi dina ma ceeb bu bari ak diwlin jërë di sant waa xaar yàlla yëpp amoo seen fay di sama dëkk Bambey ku jógu di sant ñëpp bu baax a baax a baax waaw moo ma ne mbër demal ñëpp daan booy booy man nag bëgguma mbër mu soxor looy dof dof mooy suñu grand frère Tapha dama yee trois heures du matin ñu tagoo vingt deux heures xam nga ne loolu yombut ba pare ba pare combat bu mu mës a am man lekk naa ci walooru cent mille francs maak sama morom barke Seydina Mouhamad bu dul dégg yàlla na bu ma naanati mbër te boo waxee gars yi lu ne la ñu yëg Tapha moo suñu lépp lu ne amul mbër amul bawul sans frontière lay def moom ay màgg nañ waa gis nga macha ci loolu di bëggee waa Réfane parce que boo yi boo gisee tey ma ñëw ma ñëw ak ma garaaw trop boo yi ñoo tax parce que man élève laa woon yàgguma sax bàyyi jàng man classe nga bàyyi man bi ma waree def quatrième sem laa bàyyi laa bàyyi quoi waaw kii loo bokk ak kër kii sama lépp la. ki jur maamam ak ki ak ki jur sama ak ki jur ak baay. ki jur maamam ak ki jur sama maam ñoo bokk ndey ak baay maam ki jur maamam ak ki jur maam yi tafaatit ñoo ak baay jur sama maam ñoo bokk ndey baay ki jur maamam ak maam yi ñoo bokk ndey baay waaw ki ñoom samay jarbaat lañu. mais xale bi gaañ gaañ ki mu doon bëre. waaw mais masa tayu ko xam nga lam moo xaw a bu seeram xasee tàng rek. dootoo xam li ngay def nii quoi waaw waaw. dégg naa xaaral dégg naa am di la première lay waaj. incha allah rabi am premier janvier. premier janvier leen ko. daan ngeen kenn ki mësu leen a suba sax TFM la ñëwal suba suba la dernier jàkkaarloo bi. Ah. incha allah waaw. mais foofa moo ma gënal. foofa dog laa bëgg ba ama aw ma feneen fu ma awati. Ah. foo bëgg ma am fu dul foofa yëwit ah waxuma ko de bool bool yi ñoo ne. bokkuñu Taphatine bëre ak lenn roi des arènes te Bawol Bawol li ñu bokk ñun loolu la ñuy def parce que boo gisee Bawol Bawol li ñuy jiitale ñëpp ñëw topp ci suñu ginnaaw vraiment war ñoo am lu ñu tiit war ñoo am lu ñuy ragal. mais bi am ci Taphatine ci côté staff ci côté doole ci côté supporter macha allah lan moo ko def. waaw mais dafa fekk ñu ànd ak suñuy mbokk yu baax ñu ànd ak cuun papa ànd ak Jey production. ñoom Assane Ndiaye ñoom Daouda Diagne Dieye Fallou Ndiaye parce que ñoo ñëpp Fallou Faye bi nga xam ne mooy président Fallou Faye mooy président ak écrit Baol Mbooloo bul fàtte ne moo ñëw mu changé ko def na fi lu kenn du def dégg nga ko Baol Mbooloo yooyu bu ñu àndee waxtaan ci seen biir ne Tapha Tine bokkatuñu bérébu le roi des arènes ñu li ñu bëgg la ñuy def nañoo xaar da ngeen ko bëree woon 2 juin 2013 perte ko. waaw cette fois man nañu xaar bu tafaati ñëwee mu am changement bu amaat. waaw mais boo dañu xam ne loolu ci loxo yàlla la kon xëy na daa jotagul waaye jàpp naa ne bu jotee dana yomb incha allah rabi waaw. waaw merci beaucoup. mu ne kañ lay dem Bawol ànd ak ànd ak presse bi yëpp def caravane. non waa dina ko def sax mais tey jii moom tey jii fa lay fanaane ah. parce que samedi comme tey bi mu desee 3 jours ñu ngi woon foofa. dimanche si suba lañ ñëw mais tey jii incha allah fa lay fanaani watti comme maire bi muy foofu ak paa bi foog ñu demaat foofu waaw. nga ne noo bëree combat bi. waaw sa mbër la comme liggéey na fi mu war a parce que dafa dajeek beneen champion bu mel ni moom quoi di ko ñaanal yàlla nag parce que ñun ay julit rek lañ quoi di ko ñaanal yàlla su amaatee combat yàlla may ko ndam. arbitre dafa soufflé mu taxaw ma xam ne kii nii maanaam fit bi ne xuy parce que jàmbaar saa yooyu jàkkaaroog moom ci ngay xamee kii ban jàmbaar la wala nekkul jàmbaar ci laa xam ne kii tàngi toogul ma dox avancé moom benn pas mu dem ma xam ne dominé naa ko quoi ma ne kii du ma tegi sama sama tànk ci laa dox dox ci kawam gét ko mu daw gén géew bi ñu del si ma dégg ko muy wax ay kaddu ci suuf man may noppi ci laa doxaat deloo buum ci bi quoi mu sani ma coup perdu ma gis ko moytu ko bi mu ko tolantee ci laa ko dóor ku mu wàcc ma tëdd si ay ca mbokk yi troisième combat de la soirée caatu lingeer ak boy séeréer mais moo am na sama benn grand bu ma naan mbër warul xees mbër warul xees ah mbëri xees bari na nag de mbëri xees bariwul moodu dafa xeesoon Ousa Sow dafa xeesoon Tigre dafa xeesoon Bac Seras dafa xeesoon Bulo dafa xeesoon même Tafatine sax dafa xees tafa tafa tafaatin dafa gooñaa gooñaa di mooy. gooñaa dafa xeesoon tafa même tafaatin dafa xees. waaw mais booy xool mbër yi licenciés yi mot ay ay 5000 licenciés mais ñi xees ay 5 6 nga ma wax de. mais mais ci nit ñi la am xam ay xees ak ñuul lool moom dafa xaw a doy waar te comme ay sénégalais lan xeet bi daanaka ñu dañoo xees ñu ñuul la ci ëpp. ñii dañoo xees ñuy ñuul koo ci gis nag moo xaw a xees rax na ci làkk kat quoi. rax na ci làkk kat. Ah. ayca ma dagg nañ jéng ya. diggante caatu Linguère ak Boy Séeréer arbitre soufflé na Modou. waa caatu Linguère bi fi mujj diggante mag Modou Yacine la woon mu gagné ko par décision médicale Modou Yacine jóge woon ci tiis ñu koy masaw papaam ak yaayam bi gaañu yëpp ñu koy masaw ba ci victoire boobu la mujjee parce que Modou Yacine ci stress la bëree bëree waale combat boobu. diggante caatu caatu Linguère ak booy Séeréer. ñoom ñaar daw nañu jàppante door attention caatu lingeer nga doon wut placage mais booy séeréer dafa bañ tey dafa mel ni Makan dafa am drapeau ci làmb ji. moom lan tuddee grand combat bi mooy ñëw noonu. déggal loolu. alaaji Makan Beng. ndeysaan Jibson production kenn du moom. alaaji bi Ndiaye gaynde ak sewleef gi. moom nit ku baax la xaritu Makan la. nit ku caatu lingeer ak mu koy jëm a bët. booy séeréer bañ na. booy séeréer a ngay door ca suuf ñoom ñaar ñi ngi bëre ñi ngi xeex ñi ngi bëre ñi ngi xeex attention caatu lingeer xëcc na kii saar ba jàpp na ca kii saar ba xëcc mu taawee ko topp ko booy séeréer sengoor yaa ngay lang booy séeréer da koo gën a dëgër tuuti ko attention plaquage waaw waaw na ko daw moom daan caatu lingeer daa mel da koo sàcc doole da koo sàcc doxul jàmm. ay ca mbokk yi quatrième combat de la soirée diggante xaali loo moom lañuy ñu lool lakkale moo ñu woon gannaaw arbitre sifflé na xaali loo lakkale ndeysaan xaali loo moom lañuy ñu jàkkaar lool lakkale woon ñu gannaaw attention lakkale daw na jël lakkale daw na jël lakkale daw na jël laa ilaaha illallaah lakkale daw na jël roofoo nañu jàppante ngemb attention Xaali Lo lakk le mooy njool mi moom la ñu lool mooy jéem a bëtt noonu Xaali Lo moo ñu woon gannaaw Xaali Lo Lakkale Xaali Lo moo ñu woon gannaaw ñu jàkkaarloog Lakkale Xaali Lo Lakkale eh laa ilaaha jeex na wala jeexul arbitre siffle na arbitre siffle na ña ngay concerté mais tey dafa mel ni vaar amul tey dafa mel ni vaar amul ey Lakkale daan na ko jox nan Lakkale victoire jox nan Lakkale victoire laa ilaaha illallah Lakkale ngi noonu ndeysaan da koo xëcc mu rëpp ndeysaan def kat appui mu jeex mbokk yi cinquième combat de la soirée diggante Bulldozer ak Ama Junior Buldozer moo ñu woon gannaaw mooy njool mi Ama Junior la ñu jàkkaar lool ndeysaan mbokk yi Ama Junior ma ngay ñaan Buldozer mi ngi ñaan cinquième combat de la soirée Ama Junior Buldozer arbitre souffle na génn seen diggante ndeysaan Ama Junior Buldozer ñoom ñaar ñi ngi lewaatoo Buldozer moo ñu woon gannaaw attention Ama Junior la ñu jàkkaar lool hey Bulldozer cokaas na door na daw na jël laa ilaaha illallaah ñoom ñaar daw nañu jàppante Ama Junior Bulldozer attention lan la bëgg laa ilaaha illallaah jëm na koo xar laa ilaaha illallaah jël na tànk ba kal ko kal mu gannaaw oho jeex na wala jeexul hey Bulldozer daan na Ama Junior Bulldozer Bulldozer daan na Ama Junior laa ilaaha illallaah jàpp na ci loxo coach bi Bulldozer jàpp na ci loxo coach bi Bulldozer jàpp na ci loxo coach bi Bulldozer jàpp na ci loxo coach bi ay ca mbokk yi sixième combat de la soirée ngi noonu gannaaw ba ñu mi-temps dem naan ndox ñëwaat arbitre soufflé waat na génn seen diggante ñoom ñaar Petit Faye Fodé Sarr ndeysaan attention Fodé Sarr jël na tànk ba nee na tànk ba xale ba rëcc na laa la illallaah lii lan la hey Fodé jëlaat na tànk ba xale ba ko rasu xañ ko boppam lan mooy xew da koy ruur wala lan mooy xew Fodé Sarr est-ce que ci génn foode Sarr est-ce di nga ci génn Fodé Sarr est-ce nga ci génn isaan Fodé Sarr est di nga ci génn Fodé Sarr est-ce que di nga ci génn Fodé Sarr Petit Faye ndeysaan ñoom ñaar ña nga ca suuf ñoom ñaar dañuy jogaat jogaat nañu foo Sarr Petit Faye Petit moo ñu won gannaaw ñu jàkkaarloog Fodé Sarr ndeysaan mbokk yi cay làmb attention xale baa ngi koy ŋoobu rof na ko caxabal mu bañ ndeysaan arbitre nee na ngeen bëre yeen ñaar jàppante bi mu ngi bëgg a yàgg dara amul Fodé Sarr ak fay Faye de Sarr nag bërekat la ndax li mu bëre léegi rëy na Petit fay gis nga dafa mel ni action yëpp de Sarr moo koy tante mooy songu mooy jël tànk mooy caxabal mais mooy tu la forcer kii ngay bëreel dafa mel ni moo la xaw a ñam doole tuuti Petit fay jàpp na ba mu dëgër Fodé Saara ngay wut ngemb say Gibson production moo ñu fu woo tey samedi le 18 novembre arbitre soufflé na Petit Faye Petit Faye Fodé Sarr ndeysaan mbokk yi Fodé Sarr moo tent bopp bi Petit Faye mooy njool mi attention Petit Faye mi mën a léegi mais demul waaw waaw foo nañu ay baaram tegante bopp attention Fodé Sarr ma ngay jéem a jël ngemb Fodé Sarr ngay wut ngemb Fodé Sarr takk na day rof taxawal laa ilaaha illallaah waaw waaw Fodé daan na ko ne woon naa leen Fodé Sarr mi bërëkat la takk na ko ba dëgër mu rof ko caxabal laa ilaaha illallaah hey Fodé Sarr mu jëlee jikko ye ca turandoo ba day mën a bëre attention mbokk yi septième combat de la soirée caat la masi say ak ngewel gi ndeysaan mbokk yi attention caat la masi say ngewel gi ndeysaan ñoom ñaar jege nañu saaku yi caat la masise ak ngewel gi caat la masise moo am ngemb bu xonq bi ngewel gi moo am ngemb bu ñuul bi attention caat la masise moo ñu woon gannaaw noonu mooy borom ngemb bu xonq bi caat la masise ngewel gi ndeysaan mbokk yi cey masise bi sey masticien bi mooy borom ngemb lu xonq li ngéwél gi mooy borom ngemb lu ñuul li jege nañu saako yi caat la masticien ngéwél gi ñoom ñaar caat da koo bëgg a puus mu génn saako yi ndax ngéwél gi jege na saako yi caat lool lay tànte fi mu toll nii gis nga attention hey hey lu xew lu xew hey caat daan na ngewel gi caat la ma si seen daan na ngewel gi caat daan na ngewel gi ndeysaan mbokk yi ay ca mbokk yi huitième combat de la soirée diggante Fils de Mbaye ak Sones Fils de Mbaye moo ñu won kanam Sones moo ñu won gannaaw ñoom ñaar arbitre soufflé na génn seen diggante ñoom ñaar ndeysaan Fils de Mbaye Gueye ak Sones ñoom ñaar ñi ngi lewaatoo ñi ngi déglu wante Fils de Mbaye Gueye moo ñu won gannaaw wala moo ñu won kanam Sones moo ñu won gannaaw Fils de Mbaye fils de Mbaye Gueye de mooy doomu Mbaye Gueye Sones mooy borom ndox mi attention fils de Mbaye Gueye na Sones jël na la ilaha illallah fils de Mbaye Gueye Sones mais fils de Mbaye Gueye ni mu jëlee baaxut de fils de Mbaye Gueye ngay door ca suuf la ilaha illallah Sones jël na la ilaha illallah takk na war na ndomba jargandalu naag moom fii la na ko wandeelu ak moom ey Morew Sones lu muy bëre nii Sones lu muy bëre Fils de Mbaye Gueye koy dóor Sones jàppaat na Sones jàppaat na la ilaha illallah yaa tat tat tat tat Fils de Mbaye Gueye Sones bi jeexoon na ba pare Fils de Mbaye ak Sones ndeysaan mbokk yi jàppante nañu tegante bopp Fils de Mbaye ak Sones Fils de Mbaye Gueye ak Sones tegante nañu bopp déglu wante arbitre nee na leen ngeen bëre amul jàpp taxaw attention Fils de Sones takk na wala añ na ko léegi mu bañ Fils de Mbaye Gueye ak Sones la ilaha illallah waaw waaw Sones jël na day jeex de bi yoon moo ngi koy jéem a rof taxabal galgal mboot la ilaha illallah ey Fils de Mbaye daan na Sones Sones daan na Fils de Mbaye Gueye Sones ay ca mbokk yi neuvième combat de la soirée combat spécial baa nga noona diggante Lo Karim ak Ramdan Junior Lo Karim moo ñu woon gannaaw Ramdan Junior la jàkkaar lool mbokk yi mooy combat spécial bi drapeau Pa Modou Mbaye arbitre sifflé na génn seen diggante ñoom ñaar ñi ngay lewaatoo ku ci nekk taxaw nga jonn di déglu sa morom Ramdan Junior la ñu jàkkaar lool Lô Karim moo ñu won gannaaw moo am ngemb bu weex bi ndeysaan mbokk yi ñoom ñaar ay naataangool lañu ñoo tolloo taxawaay ñoo tolloo yaram Ramdan Junior a ngi def déplacement Ramdan Junior Lô Karim attention Ramdan Junior mbiima na léegi waaye demul Lô Karim mu ngi jiital tànku càmmoñ Ramdan jiital tànku ndeyjoor ndeysaan journée Djibi Ndiaye Djibson production samedi le 18 novembre 2023 ndeysaan mbokk yi li mooy combat spécial bi arbitre nee na ngeen bëre Ramdan Junior Lô Karim ñoom ñaar attention door amagul jàpp amagul laay laax la laay doorante nañu daje ñoom ñaar Ramdan dox na ci kawam yéeg ko door ko gauche droite Lo Karim riposté remis ko ndeysaan nanaa la ndajam door fayoo ko tasoon laay laax la ñoom ñaar door kor laay laax la door door mu daanu hey Lo Karim door na ko mu daanu loo karim door ko mu daanu song na ko suba Lamine Golo hey loo karim hey loo karim hey loo karim hey loo karim xale bu école de lutte Balla Gaye bi daan na ko ndeysaan Fafen baa ngi noonu borom 52 village yaa ngi noonu cey booy Jobaas combat baa ngi noonu journée Djibson production samedi le 18 novembre 2023 diggante Boy Diobass ak Vito ndeysaan mbokk yi arbitre baa ngi leen di laaj ndax pare nañu ñoom ñaar Boy Diobass moo ñu won gannaaw ma ngay ñaan Vito lañuy ñu jàkkaar lool moo jógee jàmm gan ndeysaan Boy Diobass xaleb saafen baa ngi noonu borom 52 village yaa ngi noonu ndeysaan ku ci nekk ma seete woon la nga am loo ma wax avant combat bi waaye léegi nag lu waaye doon jaay léegi mu lamb dagg nañu jéng yi tëj nañu barrière yi arbitre souffle na génn seen diggante ñoom ñaar ña leen doon sotti gàllaaj ña leen doon jàppale contact ñëpp ngi ci biti ndeysaan moo tax ma naan la bëre wàllu teen la Vito la ñu jàkkaar lool jobaas woon ñu gannaaw ñoom ñaar ña ngay déglu Jobaas tàllal na ko loxo goos Jobaas day dem wala lan lay def Vito moo tent bopp bi ndeysaan ñoom ñaar ay ndaanaan lañu Vito newoon na ma benn jooy laa koy def kii bañ a def année balance sama boole ak moom waaye maa ko mën du sama moroom Vito na ma kii damaa xamul man dëmm laa ci làmb dama mën a bëre damaa mën a xeex te bu arbitre bi soufflé du ma reculer du wane gannaaw du ma reculer sama beneen sama benn moroomu góor loolu la ma Vito waxoon lañu waxoon avant combat bi buñ ko defee du ñu fi yàggal amateur yi combat bi mën naa jeex léegi ku nekk ñibbi samedi 18 novembre 2023 Jibson production moo ñu fi woo ndeysaan il est 19 heures 50 minutes ñoom ñaar ñi ngi lewaatoo di dégluwante li ñuy def mooy round d'observation ku ci nekk da ngay xool sa morom li mu andi arbitre soufflé na nana leen bare leen waaye arbitre baa ngi leen di jox ay avertissement verbal boo leen bërewul bu ñëwaatee avertissement la leen di jox soufflé waat na génn seen diggante ñoom ñaar Jobaas moo ñu woon gannaaw ñu jàkkaarloog Vito ndeysaan ñaari espoir lañu ñaari ndanaan lañu ñaari xale lañu Vito dagg na la waa tooba def déplacement taxawaat ndeysaan Vito ak Boy Jobaas arbitre sifflé waat na da di jël avertissement bi yoon waxoon naa leen ko Vito jël na benn Jobaas jal na benn ndeysaan mbokk yi arbitre suuf la na génn seen diggante ñoom ñaar Vito ak Jobaas ndeysaan a ngay seere làmb tàkke ga ndeysaan ba gaaw na léegi attention Jobaas Jobaas a ngi waaj cokkaas gis nga est-ce que Jobaas daa bëgg a dem Jobaas daa bëgg a dem wala lan la bëgg a def koy déglu laa ilaaha illallaah Vuitton cokkaas na Vuitton booy Jobaas attention eh laa ilaaha illallaah eh eh Jobaas jàpp na Vuitton door ca suuf Jobaas jàpp na booy Jobaas Vuitton. Jobaas Vito Boy Jobaas ak Vito ñoom ñaar roofoo nañu jàppante Boy Jobaas jàpp na mais Vito jàppagul arbitre sifflé na lu xew Ardo Ardo waaw waaw Vito demal naani soow Vito demal sa médecin ba ñu fompal laak coton fompal laak microcorop fompal laak alcool ndeysaan Vito ngi noonu di defaraat sengoor yi ndeysaan booy jobaa sangi nii jobaa sa ngi noonu ndeysaan mbokk yi cey jobaas jobaas a noonu xeleb saafen baa ngi noonu yóbbu na Vito Ardo jobaas lan da bëgg naa bëgg ñu jox ko ndox mu naan jëlal na boppam butéel ba ma ngay naan cey làmb jobaas a naan jobaas naan na jël ndox sotti ca yaram wa waaw waaw xale bu saafen baa ngi noonu ndeysaan cey booy jobaas nee na ma 52 village ñoo nekk sama gannaaw aw ma droit def erreur ndeysaan booy jobaas cey booy jobaas am na ku muy waxal booy jobaas a ngi noonu ndeysaan booy jobaas a ngi noonu Vito faj nañ ko ba pare ñëwaat na Vito ngi noonu arbitre suuf la waat na génn seen diggante bu ñu jàppantee daa war a jeex ñi ngi lawaatoo di dégluwante Vito siggi na taxaw jonn ci ay tànkam jàmm gën la waree Jobaas jógee diggante Medina ak Faas Gueule Tapée ndeysaan Vito ak Boy Diobass ñu ngi lewaatoo attention attention Vito daa bëgg a xeex daw nañ jàppante ñoom ñaar laa ilaaha illallaah jàppante nan eh lan mooy xaw Diobass a ngi door ci suuf Diobass a ngi door ci suuf jàppante nañu Vito ak Diobass Vito ak Boy Diobass laa ilaaha Vito ngay jàpp Diobass a ngay jéem a rasu jàpp na ca Sangaro la jàpp mu rëcc Jobaas jàpp na Vito ak Boy Jobaas ndeysaan mbokk yi ma nga noona Jobaas dafa ndengeñ Jobaas ndengeñ na Vito yëkkati bopp gis nga daa wala lan lay def Vito ak Boy Diobass ndeysaan waaw waaw ñoom ñaar ña nga jàppante di déglu wante journée Djibson production fii xeex bu sew mën naa am ci suuf xëcc añ mën na am rof weeru rof caxabal weeru mën naa am ndeysaan gis nga jobaas daan dengeñ moo tax Vito mënta liggéey jobaas lan la bëgg ma ngay ngoobu lay laaxe jobaas a ngay ngoobu attention jarga ndalu na ma nga da doon jéba da doon jéem a bët may xale bi ko croche ba dëgër Vito ak Boy Jobaas Vito ak Boy Jobaas ndeysaan Vito dar na Jobaas fam jàppoon la jàpp ba léegi bàyyiwul ndeysaan cey ajaan di ku mooy woy ci micro central bi noonu nee na bàyyi leen seen yaaba bi te laale bu doon làmbu jigéen sax ba léegi jeex na waaw waaw Vito ak Boy jobaas Vito ci téere ci ci sengoor yi la jàpp bu xëccee sengoor yi da topp ndeysaan Vito ak Boy Diobass ndeysaan ñoom ñaar jàppante nañu booy jobaas ndengeñ Vito di wut ngemb ndeysaan Vito ak booy jobaas attention la ilaha illallah eh lan moo am dara amul dara amul Vito ak booy jobaas Vito génne na loxo ba attention Vito jobaas mbërum mbapat la Vito ak Boy Dioba journée Jimson production Vito génn waat na loxo ba pour jàpp Boy Dioba xañ ko boppam ndeysaan mbokk yi combat bi Dioba fi mu ndengeñ dafa mel ni dafa sax ndeysaan waaw waaw Jobaas dafa mel ni bët la bëgg mais Vito mayu ko loolu ndeysaan Vito jàpp na mais ci sengoor yi la jàpp boo Jobaas jàpp na ci ngemb li génn na loxoom jàpp ca ginnaaw ngemb la lan la bëgg ma ngay ngoobu ma ngay ngoobu attention ma ngay ngoobu laa ilaaha illallaah ey rof na caxabal xale ba bañ kal na ko la ilaha illallah ey daan na Boy Diobass Vito daan na Boy Diobass xaleb saafen bi daan na Boy Diobass Vito ngi noonu mbokk yi daan na Boy Diobass cey Vito ba ngay tekki sengoor ya wala Boy Diobass daan na Vito Diobass daan Vito waaw waaw Diobass daan na ko Diobass daan na ko Vito nga ne tëdd Vito ngi noonu tëdd ndeysaan mbokk yi Vito jógal sa ki la daan champion la Boy Jobaas daan na Vito Sawru Fall jox na ko ndox mu naan Jobaas xale bu saafen baa ngi noonu nee na ma 52 village ñoo may topp aw ma droit def erreur kii bañ def année balance tax ma jël ko mel du ma moroomam. mel ne la mu waxoon appliqué na ko ndeysaan Joba Sanga noona Joba Sanga noona cey boy Jobaas